إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokk jullit yi gannaaw ba ñu leen dénki ak ragal yàlla dénki leen ngeen wéetal seen boroom dénki leen ngeen doyloo ab yeneen tam ci mu nekk seen rayukaay ñu ngi dellusiwaat tey jii nga xam ne ñi nga xam ne ñuy xëccoo réew mi tey la ñuy tëj seen campagne boobu ñu tuddee campagne électorale ñu àndoon ak ñoom ci campagne bi jaarale ca ñaari xutba ñu nit tey ñu bëggoon a tëj ñu nit sunu campagne yi campagne ba mooy lan campagne yi fàttaliwaat jullit ñi ni seen parti day mooy parti bi islam fàttali waat jullit ñi ni la tax ñu ñëw ci kaw suuf day mooy ñu jaamu suñu borom jéggal ko fàttali waat jullit ñi ni bu leen nangu lenn ci àdduna di leen ceqale programme boobu nag ñu ngi jógee ci suñu borom ci benn saar boo xamee ni nii tënkal nañu ko ci fukki aaya ak juróom-ñett yoo xam ni man ngaa jëm ci saari alquran fekk fa saari yu mat ñaari téeméeri aaya te njàngit ba ngay jànge ci suuratu xujuraat nekkul te saar yooyee loolu di tënk yërmaande gu yàlla subhanahu wa taala yombal ci loolu donte ne ni fukki aaya juróom-ñett yooyu suñu borom mën ko tënk ci mille quatre cent soixante seize xarf yow mi nga xam ne yaa bëgge tuyaaba soo ko jàngee da nga xam da nga am la nga xamee ne nii mooy quatorze mille sept cent soixante ci ay tuyaaba mi ngi wàcc ci at ma yonent bi alei salaam ubbee Makka giiri arab yépp ñëw di dugg ci biir lislaam lislaam soxla woo tëralal julit ni doxalin boo xamee ne nii ñoom ñépp daan nekk ci jàmm bëggante soppante loolu nag mbokk base ba ko jiitu suñu boroom dañoo woo ay yéen ñi gëm te ci biir saar bi woo nañu ci juróomi yoon ñu jagleel ko ñu gëm juróom benneel ba mu boole ko mboolem ay jaamam bi yaa ayuhan nas ci biir saar boobu la muy jëkk a wax ay yéen ñi nga xam ne dangeen a gëm bu leen jiitu yàlla ak yonent yàlla ragal leen yàlla te xam ne yàllay jéggi lépp di xam ne muy wane na yow julit ngal la waaye da ngaa ñëw ci kaw suuf ngir jaamu yàlla naka ngay jaamoo yàlla mooy la yàlla digle yonent yàlla digle ko bépp façon jaamu yàlla boo xam ne bañ ko xoolee dafa génn njàngalem yàlla ak yonent yàlla loolu la ñuy tuddee bidaa te yonent bi alei salaam ne ne bépp bidaa ak réer la looloo tax képp ku la ne jaamu yàlla gi baax na naka teg ne fii la ko yonent yàlla ba digle ñaareel ba suñu borom ne ay yéen ñi gëm bu leen jël seeni wax di ka teg ci kaw waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu mën naa màbb seeni jëf te yéen du ngeen ko yëg loolu mu lay wan ne yow jullit say wax moom dama koo jéllale waaye waxu sëriñ boo mën a naw ci kaw suuf waxu kilifa googu mën a naw ci kaw suuf mu wax ay waxam wax yooyee safaanoo ak waxi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngal la waay bul jël ay waxam teg ci kaw wax yonent bi suñu xisee ba ne yonent yàlla bi nee na waxi keneen ku dul moom dañ koo war a jël sànni ca àll ba suñu borom nag ne ñi nga xam ne day ñoom ñooy sajji seeni kaddu heure bu ñu déggee waxi yonent bi ñii la yàlla laabal seen xol ci ngëm yàlla jullit la nga ñii noonu doon ko jaamoo yàlla pas-pas da nga xam ne moom nga gëmoon ñu dem ba jëmmi jamono leeral ne la lii day la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ca loolu safaanoog la nga gëmoon yow safaanoog la nga doon jëfe yow ca saa si ngay daal di bàyyi loolu toppi waxi yonent ba sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ñu mel nii day lañu laabal seen xol ci ngëm te ñu mel nii day ñoom ñoo am njëggal ak fay yu mag muy safaanoo ne keneen ku dul moom ngan la waay bokkoo ci ñoom suñu borom yàlla daañu ne ñi nga xamee ni nii day ñooy woo yeneen ci yàlla bi ci biir ay néegam ñooñee day amuñu xel tey suñu muñoon ba mu génn moo gën ñeel leen loolu luñ tey déggee yeneen ci bi dundatul tey waaye day wane na yow jullit xamal ne yonent boobu danga koo war a yoral lii di benn respect benn wegeel benn màggal goo xam ne sa ndey amu ko sa baay amu ko sa général d'armée amu ko président de la république amu ko képp koo xamee ne ni yaa ngi koy jox cër cër ba nga jox yonent yàlla bi wóor a gën a mag looloo tax ay ndigalam doo ko yemele ndigali keneen ku dul moom lam tere doo ko jëndee ndigalu keneen ku dul moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom bi it daal di ne ay yéen jullit ñi ba doon te ni day yonent yàlla bi dana leen topp ci lu bari ci seeni mbir kon da ngeen gis ne da ngeen doon ñoo xam ne ñuy alkolañ lool it mu ñuy jàngal yow jullit ngan la waay lépp loo xam ne décision la booy jël na nga ko delloo ci sa borom yi xam-xam yooyu nga xam ne ñoo ci wuutu say yonent yàlla bi muy wane it yow njiitu jullit ba ak koo mën a doon ci njiit yi bul def lu la mbooloo ma sant rek nga def ko bal del xool la ca jaadu ak la ca jaaduwul la ca dëppoo ngërëmal yàlla ak la ko ci dëppoowul suñu borom yàlla mu ne ay yéen jullit nii xam leen ne yàlla day moo leen bëggloo ngëm yàlla moo ko taaral ci seen biir xol mbokk màndarga jullit mooy day bëgg jaamu yàlla jullit day bëgg julli day bëgg jàkka day bëgg koor day bëgg jël alalam di joxe day bëgg jàng alquran loolu dafay dàqal leneen lu mën a doon moo tax suñu borom mën a zayyanuhu fi qulubikum da koo taaral ci seen xol yi jukkoy lislaam yi taaru ci moom lool heure bu dajee xale bu jigéen bu muuru xolam sedd guy heure bu gisee ndaw lu sol dàllam jëm jàkka ja xolam sedd guy heure bu gisee koo xamee ne nii ma ngay taxaw di jàngi diineem xolam sedd guy lu waral loolu wa zayyanahu fi qulubikum suñu borom moo taaral la nga xam ne mooy njëm ci seen xol contraire la suñu borom mu ne nii laa leen bañ loo kéeféer bañ loo leen génn kap bañ loo leen bakkaar mbokk jullit day bañ sangara kuy naan sangara jullit day bañ njaaloo kuy njaaloo jullit day bañ carte ak kuy carte jullit day bañ agresseur ak kuy agressé jullit day bañ lekk ko bu riba képp kuy lekk riba jullit day bañ képp kuy toroxal doomu aadama yi lu waral loolu suñu borom nee na loolu maa ko def moom sax ci seen biir xol yi lii la suñu borom mu ne ngëneel la muy bawoo ci yàlla di xéewal boo xam ne da koy jaglaate mbokk ngëm yàlla yàllaa koy jagleel ku ko neex ci ay jaamam te it xamal ni mboolem lu doomu aadama di am ci kaw suuf la ca gën a màgg la ca gën a yey ñi war koo sàmm mooy la nga xam ne mooy ngëm gi la yàlla jagleel lan moo waraloon yeneen ci bi gàddaay lan moo waraloon sahabatul kiram gàddaay lan moo waraloon Ibrahima ak Luut gàddaay lan moo ko waral mooy dañoo gàddaay yoon bàyyi adduna seen gannaaw ñee bàyyi seeni soxna ak seeni borom kër ñee bàyyi seeni tool ak seeni alal ak seeni wayjur ngir sauver ji la nga xam ne mooy seen diine ndax loolu mooy xiiwal gi gën a rëy gi doomu aadama am boo ko ñàkkee amootoo dara même bu doon yaay président États-Unis soo ko amee ñàkkatoo dara même bu doon baykat nga buy fanaan ci néegu ñax ci Kédougou loolu la jullit war a bàyyi xel fu mu mën a toll sunu borom yàlla wëlbati ko daa gi ne ay yéen jullit ñi heure bu dee ne am na ci ay jullit ñuy xeex ci seen biir ngal la waay jóg leen yéwee ne seen diggante heure buñ demee ba kenn lank ne moom du yéwénoo ngeen yëg ne dafay tool yéen ñëpp ànd leen xeex ko te yéen ñëpp su ngeen paree na ngeen doon ñoo xam ne ñu ngi maandu seen diggante lu jiitu mbokk jullit xeexu diggante ay jullit ci seytaanu muy jóge waaye ngal la waay yow jullit xamal ne tuur deretu mbokk jullit ci bakkaar yi gën a garaaw la bokk yeneen ci bi alei salaam nee na yowmal qiyaama li yàlla jëkk a atte ci jëf yi mooy julli li yàlla jëkk a atte ci àq yi mooy deret yenu tuuroon ngal la waay fexeel dund ba xëy dee fekk tuuroo deretu mbokk julit amaa nag tuur bakkanu julit loolee mbokk julit bu dee ba nga koy def day yaa ngi jàpp ne lii moom mën na doon lu dagan ci yow loolu da lay génn ci lislaam waaye boo ko jàppul xamal ne ci bakkaar yi gën a màgg yi al alagaati ca la bokk na am waaye problème am na jullit ñi ñu ngi jàppante suñu boroom mu ne jóg leen yéwénal seen diggante lu waral loolu mooy jullit ñi ay doomi ndey lañu mbokk na am tey jii bu ñu teqalikoo ci wàllu politique ku nekk ngay meeting place sangam di yéene musiba ña ca des xool leen fi ngeen toog ci biir jàkka bi ndax xam nañ fii moo bokk parti bi wala bokk parti bi la wallahi kon lii leen boole moo gën a màgg leneen lu dul loolu ay doomi ndey lañu yéwénal leen seen diggante su ngeen bëggee yàlla yërëm leen loolu mbokk ñu dégg ci ne xatta ay jullit bu doon te ne dañuy jàppante ba ñu dem sax xeex ak kan nangoo bañ ba delloo ko ci dëgg teewul nañ continuer ba jàmm am seen diggante suñu borom yàlla nee ne ci lii ngeen di amee yërmaane ay waay yow mi may dégg tous les politiciens yi xëccoo suñu réew nañ xam ne buñ bëggee yàlla wàcce yërmande ci réew mi ñun ñëpp dañuy ànd joxante loxo bokk ndey bokk baay privilégié la nga xam ne moo ñu boole te mooy diine yi lislaam jiital la nga xam ne mooy suñu ngëm wallahi bu ko réew mi àndoon def ko yàlla wàcce yërmande yàlla moo ne فاصلحوا فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ñu dégg ci it yow jullit su dee suñu borom dana la taxawal heure boo gisee diggante bu yàqu solol saw dàll ba diggante ma defaroon ndax xel dana nangu yow sa wàllu bopp nga bokk ci ñuy yàq ay diggante la wallahi ndax xel dana nangu yow sa wàllu bopp nga def jëf joo xam ne wala wax joo xam ne day yàq sa diggante ak sa mbokk jullit la wallahi loolee kon mbokk di mbir moo xam ne dañ cee war a bàyyi xel bu baax suñu boroom ci des sa saar bi dikkal ñun ci mbir yoo xam ne day yàq diggante mbokk bokk na luy yàq diggante mooy reetaan nit ki xeeb nit ki suñu boroom mu ne ay yéen jullit ñi bu leen reetaanante seen biir rawatina yéen jigéen ñi bu leen reetaanante seen biir bari na koo gis xeeb ko di ko reetaan fekk moo la gën fuuf te yàlla subhanahu wa taala suñu borom yàlla mu ne ay yéen jullit ñi bu leen nekk di sànnente ay tur yu baaxul ay yéen jullit ñi bu leen nekk di ayibalante ci seen diggante ay yéen jullit ñi xam leen ne day lii képp ku ci tuubul yow yaay ka nga xam ne yaay tooñkat bi loolu muy wane ne mbokk jullit fu ñu mën a toll war nañu nafarat suñu bopp ba benn ci jukko yi nekkul ci ñun ñu bari tuub dellu ci yàlla yàlla ku tuub mu baal la jalla wa ala suñu borom yàlla wëlbati ko waat ay yéen jullit ñi mooy di leen lu bari ci ay njoor ndax lu bari ci njoor te day bàkkaar kese la nga la way jullit del njort ci sa mbokk jullit aw yiw ba baa ngay gis safaanu loolu ay yiw jullit lépp luñ la indil ci yow ne la lii kat daa jógee te la nga xam ne ci say mbokk jullit la ngay jëkk a joxe ci ngant mooy jàpp ne loolu amul loolu la ñu suñu borom yàlla wax ca bopp saar ba mu ne heure boo xamee ni nii nit dikkal na leen ci xabaar rawatin ci ab faasil ngalla waay leer lu leen bala ngeen a réagir du dagal ci yow jullit ñu indil la xabaar ne la sa mbokk jullit moo def nangam nga daal di koy atte te dégguloo lan mooy lan yam joxe moom loolee la nga xam ne mooy benn wax rek fexeel ba bu ci atte sa mbokk jullit lépp loo xamee ni nii yaa nga ciy jël ab position na fekk nga enquête ko ba xam ko tubaab yi lu ñuy doy waar doy waar dañ naan sans enquête on n'a pas droit à la parole doomu aadama bi xabaar yi nga dégg rek te wóorlu ko woo ko amoo droit di ci jël benn position kon moytu leen ay njort rafetal njort ci say dëkkandoo rafetal njort sa borom kër rafetal njort sa soxna rafetal njort sa collègue de service ñaaw njort lu yàqu moo ko yàq ñaaw njort boobu mooy indi la ca tege la gën a garaaw te mooy jëwante doomu aadama bi boo ñaawee njort ci moom suñu borom mu ne bu leen yëddoonte laa tajassasu ñaaw njort moo tax ngay gëstu doomu aadama bi di déglu doomu aadama bi di xool fan la doomu aadama bi di dugg suñu borom yàlla mu ne loolu bu leen ko def yeneen ci bi alayhi salaam ne képp koo xam ne yaa ngi topp sa mbokk jullit ngir xam ay sëkkëreem ba bëgg koo weer yàlla dana la topp ba weer la ci kanamu nit ñi gannaaw ba suñu borom tere la gën a bon ci loo xam ne doomu aadama dana ko taxawee ci kaw suuf muy la nga xam ne muy jëwaar yi mu ne gannaaw waay jullit ñi boo leen jëwante seen biir mbokk jëw mooy sa mbokk jullit def na benn mbir sa mbokk jullit wax na benn mbir boo xam ne li ngay wax dëggu gu wér la moo ko def waaye nit ku fii nga koy wax gannaawam te bu ko déggoon du ko neex lii mooy la nga xam ne mooy jëw lan la ko suñu borom méngaleel nee na ñu ngi mel ne nga amoon sa mbokk mu daal di dee avant ñu koy suul nga indi sa paaka di dagg di lekk nee na kiy def lii moo kiy jëw mbokk jullitam ñoo yem loolu mbokk mooy bu dee la ngay wax moo ko def amma bu dee da nga koo duural nag loolu moom paas na jëw loolu dañ koy tudde buhtaan suñu borom yàlla nee na ñi koy def mbugal ya gën a tar na nga leen di xaar comme na mu koy waxee ci suratul ahzab ay yéen mbokk julit suñu borom nee na day ragal leen yàlla te xam ne yàlla du deñ di nangu ak tuub te mooy fu ngeen mën a toll dee leen tuub fii ak yéen a ngi tuub yàlla di leen nangul tuub tànka tàyyiwu leen ci tuub yàlla doon tàyyi ci nangu leen ak tuub gannaaw loolu suñu borom yàlla mu ne ay yéen nit ñi xam leen ne yéen ñëpp maa leen bokk bind ci benn bakkan bind ca la nga xam ne mooy doomam wax leen ak seen doom yi nekk ci liisa yi dañ leen jàngal ne doomu aadama ci golo la jóge mbokk loolu kéeféer la alhamdulillah dem nañ ba science moderne wetti ko waaye bépp tey programme boobu la ñuy jàngal suñu doom ci lycée yi doomu aadama mi ngi jóge ci hasard ak nécessité ay doomi golo lañu déedéet mbokk jullit ñun ay doomi aadama lañu ak xawa suñu borom moo ñu bind teqe lañu def ñu ay mbooloo yoo xam ne ñii ay nation lañu chinois yaa nga ne américain yaa nga ne africain yaa nga ne mu def ñu suñu biir ay biir tukulóor njaago bambara soroxul ila axiri mais ndax loolu lu tax yàlla def ko mu ne li taarafu ngir ngeen xamante laajal seen doomi ne Amérique wallahi gis ku ne képp biir Amérique xamu fa kenn laajte ndax ay sénégalais amul fii ñu ne ko naam bu ñëwee ba ne salaamaaleykum ñu ne ko waaleykum salaam day mel ne asamaan lañ ko teggoon teggi ko ndax gis na ay mbokkam loolee kon moo tax yàlla def ko mais ndax arab bi moo gën ko ñuul ndax chinois bi moo gën ku weex laa suñu borom yàlla ne ne ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla mbokk lii teb dana doon loo xam ne bépp julit bu gànnaa yoo sama mbokk julit bu ma dajal day mën na am moo ma gën wallahi jàmm dong may dox suñu diggante ay xeexati waasoog yu demee noonu day jeex suñu biir suñu borom yàlla nag mu ne xam leen ne man may ki xam may xabiir kan mooy ki gën a ragal yàlla kenn xamu ko loolu sëkkëre la bu yàlla dencal boppam loolu boo ndax ba koo dajal rek jàppal ne mën na am moom a gën lii mooy la nga xam ne moo lay sauvé mbokk suñu borom yàlla dana jeexal saar bi ci ñoo xam ne dañuy ñëw di buukarewoo seen ngëm di wane na ñun kat dañoo dugg ci biir lislaam te kenn jihaatul ak ñun yow yeneen di war nga ñoo fonk suñu borom lam leen jëkk a wax mooy nee leen dugg ngeen ci lislaam waaye amoogu leen ngëm lan mooy maye ngëm su ngeen toppee yàlla topp yonente yàlla mooy wane na gëm ngeen te mbokk diine du diine làmmiñ waaye diine mooy toppaate suñu borom nee na su nee ne da ngeen bëgg yàlla ngeen bëgg yàlla bëgg leen topp leen yeneen ci yàlla kon yàlla gën leen bëgg borom boobu subhanahu wa taala ne jullit ñi dëgg dëgg mooy ñi gëm yàlla gëm yeneen ci yàlla te amuñu ci benn sikk sàkka di jihaad ci yoonu yàlla ci seen alal ci seen bakkan mbokk jihaad boobu mooy lan mooy xool leen ni que politiciens yi di defe loolu mooy jihaad politiciens yi da ngeen gis at yi yépp ñu ngi jihaad ci wàllu politique amma ñetti semaine yi gën nañu taral jihaad boobu jël nañu seeni alal teg ci politique boobu jël nañu seeni temps teg ci politique boobu dox nañ ji milliers de kilomètres wër Sénégal gépp ngiree parti bañ bokk daal di jëm kaw mbokk loolu mooy jihaad jihaad mooy la nga am ci alal am ko ci xalaat am ko ci temps nga jagleel ko ngiree sa diine jëm kaw mi ngi noonu loolu la suñu borom yàlla subhanahu wa taala di wax nañ ni ñii rek ñooy ñi nga xam ne ñooy ñu dëggu borom bi subhanahu wa taala yi di wane ni bu leen ma xamal seeni ngëm te lislaam mbokk bëggul kuy puukarewu na doon ngëm nga ngay puukarewu wala jëf boo mën a defal yàlla nga di ko puukarewu déedéet ban puukare yàlla rek la ñeel soo gënee mbaaxu yàlla la soo amee bay joxe mbaaxu yàlla la loo mën a def ci lu baax baaxul yàlla la looloo tax al mannu lillah lii di fuukariwu yàlla dong mooy ka nga xam ne moo ko yeyoo borom boobu nag subhanahu wa taala tëje saar bi ci ne ay yéen nit ñi xam leen ni lépp luy kumpa luy xew ci asamaan yi ak suuf man yàlla xam naa ko te maa ngi jàkkaarloog yéen di xool naka ngeen di jëfe mooy wallahu basirum bima taamaluun lii mbokk mooy grade bi gën a kawe ci diine moom la ñuy tudde al ihsaan nga xam ne su ma nekkee wiit man kese yàlla ñu ngi may seetaan man sama njaboot yàlla ngi may seetaan man ñi may liggéeyal yàlla nga may seetaan maa nga ca réunion ba yàlla nga may seetaan maa nga bitim réew yàlla nga may seetaan te yàlla moo ne la nga xam ne moom la lay gise mi ngi koy enregistré ci ay malaakaam lépp loo xamee def nga ko ci lu baax ak lu mu néew néew loo def ci lu bon ak lu mu néew néew boo ñëwee danga sa rendre compte ci sa kanamu boroom la yeyoo ci fay mu daal di la koy jagleel mbokk jurit tënk bi ñu tënk saar bu màgg bi ngir tëni ko ñu ne suñu campagne électorale ngal la waaye nañu ci bàyyi xel ci ne jullit islam mooy sa parti jullit say camarade de parti mooy ñi nga bokkal la ilaha illallah muhammad rasulullah lenn ci àdduna bum jar noonoo dox seen diggante ngir loole ànd leen joxante bokk ndey bokk baay réew mi ñoo ko bokk ñun ñëpp nañ bokk jéggal borom réew mi ku nekk la nga man sa njaboot nga def ko su ma defee sama kemtalal kattan sama njaboot keneen def ko keneen def ko da ngay gis na réew mi doon réew bu baax ragal yàlla boogee ñi am suñu biir ak yërmaane bi ñu am suñu biir mooy tax xiilu li yàlla ñëw ci ñun moo tax yërmaane ñëw yàlla ñëw ci ñun mbokk lii bu amul na pétrole am gaz am or am lépp am loolu fitna rek lay doon amma yërmaane ak ngëneel yàlla du ko jagleel lu dul réew moo xam ne dañoo ragal yàlla jàppante bëggante yàlla na yàlla defal ko suñu réew mbokk yàlla na yàlla defal ñu jàmm ak aafiya ci élection yi nga xam ne mooy ñëw suñu kanam yàlla subhanahu wa taala mooy tànn ku ko neex yàlla na te yàlla tànn ka gën ñeer ñi suñu diine tànnal ñu te ka gën ñeer ñi suñu adduna mboolem fitna yu mën a jur yàlla yàlla fanqal ñu ko mboolem xiiwal yu mën a indi yàlla yàlla yombal ko ci ñun yàlla na yàlla defal ñu aafiya defal ko suñu njaboot yàlla na yàlla yërëm ñu yërëmal ñu suñu way dawli yi yàlla na yàlla defal ñu kër ba ñuy daje dajeeg moom mooy bis ba gën ci suñuy bis yal na jannatul firdaws di nekk suñu wàccuwaay yi allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin